c'est la voiture de mon petit frère sama petit frère la ñu def nii otom ba mu jeex takk mais pour aucune raison quoi aucune raison c'est-à-dire yow defuñu leen jegewuñ leen ñun ñoo bokk kër gi ñoo bokk fi ñu taxaw ñoo bokk lépp dem nañu tox ba seen xol sedd naan ba mandi recruter nañu bandi Grand Yoff yëpp ku nekk ñu jox la vingt mille vingt mille vingt mille vingt mille ne leen soo leen demee ba fii mais Barthélémy Diaz était là-bas il était dans sa voiture yéegi ñu toog devant ñun ñoo leen gis ci suñuy bët nanguwul wàcc dafa ñëw romb rombaat il est parti cinq minutes après ça ça s'est passé au nom de quoi Barthélemy Diaz teg ko fan bi yóbboon nag ñëpp xam ne Barthélemy Diaz mi ngi yàqal Khalifa Sall lu bëre na waa taxawu Sénégal yëpp xamee noonu Barthélemy Diaz mi ngi yàqal xalifa sàll lu bëre xalifa sàll xeexul xeexaanul puusul randalul lii yëpp Barthélemy moo ko si dugal mi nag affaire u yi muy jaay su deful ndànk su deful ndànk il va le payer très très très très cher te man personnellement j'irai voir tonton Khalifa personnellement j'irai le voir ça c'est inadmissible Khalifa Sall su ñun la bokk Khalifa Sall su ñun la bokk man il fait partie man il fait partie de moi il fait partie de notre famille xam na suñu waa kër yëpp donc man je trouve inadmissible lii nii duñu dal ñun si kër gi lañu bokk duñu ay jàmbur duñu ay jàmbur il n'a pas à aller payer qui que ce soit pour ñuy tas manifestation ba nga xam ne pacifique la te la nga xam ne dañ koy ñaxtu pour Sénégal te ñun ñëpp ñu bokk ko inan c'est inadmissible nekkul lu may inventé maa ko wax sama digganteeg yàlla ñoo leen jàpp foofu waaye kaya dóor xale yi bi ñuy bëgg a dee mais ils ont dit ñoom seen yoon nekkul si xeex dañ leen fay rek vingt mille francs ku nekk ñu ne leen ku leen fay ñu ne Barthélemy Diaz et qui les a recrutés c'est sa fille seen gémmiñ suñu nopp nekk nettaliwuñu ko maa ko fekkee seen gémmiñ suñu nopp waa léegi ñun waa taxawu ñun luñ ciy wax dañuy toog di seetaan dañuy toog di seetaan di continuer di ko jàppal tànk man caam duma ko def tey duma ko def suba duma ko def tey duma ko def suba man personnellement j'irai voir Khalifa Sall te lii dina leer parce que kii lim koy yàqal moo ëpp lim koy defaral moom xam na ne jeexal na politiquement il faut être réaliste Barthélémy Dias réewande bi muy jaay tegu ko fenn fenn la ko tegul fenn la ko tegul fii nag Sénégal la dañoo tawul xeex suñu biir ak xulloo suñu biir nañu waxante dëgg dañoo war a booloo jëlee fi kii nii fatt ñu taraj taraj taraj ne du fi jóge c'est ça l'objectif mais su fekkee ne ñun ñu ngi defar yow ngay yàq bu boobaa nag il aura affaire à nous carrément et directement te bu boobaa tamit lu mu am jël ñun ñi nga xam ne ñoo ànd xalifa sàll Sall wala même su dul dara sax ñu jàpp ko bëgg ko considérer ko naw ko on va tous se contre Khalifa te bu boobaa moom mooy perte lu leer laa leen wax man je suis sur le terrain moom li muy jaay ñoo ko ko dàq fuf su dee wëyu lay jaay ñoo ko gën a wëyu su dee band lay jaay ñoo ko gën a bandi xay Barthélemy Dias bërki démb la fi juddu moomul Dakar moomul nit ñi kil na nous de pas te Khalifa Sall lay yàqal sama xol metti na tey sama xol fees na on nous a caillassé on nous a blessé de quoi pour lan il pour qui au nom de ba pare léegi suñu jógee waa taxawu yépp la ñuy wax nag ñu laxas si taxawu yépp te fekk na si saa su turub Khalifa Sall yéegul tinul man looloo ma naqadi benn Barthélemy Diaz il se permet de faire euh, ce qu'il veut di jaay ne moom mooy le roi de Dakar ñun ñii waa Dakar lañu Dakar lañu juddoo Dakar lañu màggee daf ñu fay ëppalewul dara au nom de quoi il sa permet au de quoi fii laa koy teg nag fii laa koy teg réunion nañ fi bay bëgg a dee cotiser nañu bay bëgg a fii laa koy teg fii du ma ko teg feneen fii laa koy teg fii laa koy teg di jéggalu nag wax ju si dëgëree tey kuñ ko def sa xol dina metti man moins cinq ñu jaasi sama baat bi moins cinq lan laa def. tous dem ci manifestation euh, pacifique Barthélemy mu teg ko fan waaye lépp dina leer